asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur bu Equivox TV ñu ngi leen di nuyuti di leen ziar ni ngeen ko xamee rek ak Babacar ah, tey nag mu ànd ak yàgg maar si caméra bi hélas tamit ah si logistique bi maanaam dawal bi tey moom la nu ah, mën a ñàkk tey nag ñu seet si koo xam ne defe naa ne waxuma sax euh, sport Sénégal waaye Sénégal ci boppam voie autorisé la ci muy Malick Thiandoum Malick Thiandoum kenn ku ñuy représenté ku ñuy présenté Sénégalais yi defe naa ne par rapport ak tracé fi mu jaar ci sport beeg. maanaam wàllum presse yooyu tey nag ñu fas yéene ñëw waxtaan ak moom si làmb pour pas ak leneen sax parce que tamit yaakaar naa bëri na loo xam ne war na ci mën joxe kàddoom te bu ko ci joxee yaakaar naa lu ñu war a mën a jàpp la parce que la muy wax ak lay am day méngoo day doon benn grand frère maa ngi lay nuyu di la ziar Sidi Az Malick di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci yow. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi euh, seetaan Equivox TV. Mhm. Euh, di am mbégte lool ci dalal sama sëriñ sëriñ Babacar ndax boo duggee ci kër gi rek xool di nga xam ne <laughs> Seydi Aboubacar am na fi place bu rëy a rëy bien donc ñu am mbégte lool dalal la ak équipe bi nga euh, àndal hmm. ngay suñu rak ñu bokk waar wi euh, te tamit dañuy faral di wax ne xale bu loxoom sete mu mën a bokk ki mag hmm. wax dëgg yàlla cër bi nga ñu jox gis nañ ko cofeel gi nga am ci ñun gis nañ ko merci te it ngay xale bu nga xam ne eh, doo ñooru mag waaye tamit eh, ñun ñi nga xam ne ñoo la jiitu ci métier mi eh, da ñoo jox cër ba lépp lu nga xam ne xëy na bëgg nga ñu xelal la ci tamit doo hésité laaj ñu ko te je pense que ndaw bu nekkee ci waar mhm. loolu moom mooy tax mu avancé parce que ku la jiitu ci néeg bu lëndam moo lay wax fooy toog fi nga teg sa tànk foofu la ñu lay ñaanal rek vraiment Euh, beaucoup de succès ba ñun fi ñu toll nii nga raw ñu foofu. am na solo amin grand frère am na solo waaw loolu moom defe naa mooy li war a am parce que tamit yaakaar naa yaa wax olof wax na ko ku la jiitu ci néegu lëndëm moo lay wax fi ngay tooge te olof ne sukk du tere yóbbu say oom. defe naa nag li ngeen ñu rawee du lu ndaw defe naa kon ñun bu ñu ñëwee rek dañuy jéem a ci yéen di làng ci seen côté di leen déglu di ba soxla seeni i xel ak seen i yéen ñu leen di jëfal ci nangu ngeen ñuy nangoo séddoo ak ñun li ngeen xam ndax bu leen neexoon tamit du demee noonu surtout yow mi nag ñu toogal euh, mais grand ginnaaw bu loolu passé bu mu leen nuyuwaatee euh, defe naa ne Malick Thiandoum boo ñu doon tënkal jaar-jaar bi yaakaar naa ne ci ñi la xam RTS lañ la xamee après groupe Futurs Médias astafurlah groupe de médias du moins après tey E-Média defe naa passage bi noonu la demee waaw noonu la demee déjà Thiès rek la commencé ci station bu ndaw bu ñuy wax Thiès FM 100.6 di euh, euh, rajo bu nga xam ni euh, rajo régional la bu RTS. Mhm. ñu nekk fa bénévole doon liggéey te duñu fayeeku. def nañ fa daanaka ñett ba ñeenti at yu nga xam ne émission yañ fa am ak suñuy déplacement suñuy couverture ak lépp ñoo ko doon sàkkul suñu bopp daal maanaam dañ doon débrouiller. Mhm. Euh, dictaphone bi ma doon liggéeyee sax maa ko jëndaloon sama bopp bu may ñëw di liggéey si may paasal sama bopp xaaruma ci woon payoor mhm. parce que boobu euh, ci ndorte laa nekkoon di wut bunt pour euh, dugg ci milieu média je pense que mooy rek li ngay li ñuy wax ne mm, wàññi boo gis ci benn lay commencé te dara xëyul neex metti woon na lool ba ñu xëy sax ku nga xam ne du ma tudd turam ñoo bokkoon liggéey bi amaana progression bi ma doon am ak yooyu neexu ko ak euh, nit ñi appréciation bi ñu doon am ci suma liggéey ci jamono. Mhm. xam nga milieu presse dafa bëri jalousie. te dafa xaw a doy waar mu xëy rek ni ma arrêtel parce que moom chef la woon foofu. Mhm. Euh, mais arrêtel boobu li ñuy wax yàlla buy buy defar day mel ni ko yàq. <laughs> Ah, ci arrêtel boobu ci laa arrêté ba ma fay jóge yi tamit euh, ma wax ko ne li nga ma dàq ni dafa may gën a yokk jom. ndax dama gëm ni on combat jamais les médiocres nit bu xamul dara kenn du la combattre. Mhm. donc kon dàq bi nga ma dàq nii te tegoo ko fenn dama jàpp ne xëy na maa ngi ci yoonu euh, euh, tekki dara ci métier bi te bu soobee yàlla dinaa ko tekki mhm. noonu la ñu kitteentee ba yàlla dogal bés ma dem ci matchu nawetaan parce que ci nawetaan yi dama doon dem di reporter final yi ñu takkal ma ay baafle mhm. euh, ñu may jële ngaay di ma yóbbu Tivaouane jële ma Tivaouane yóbbu ma Thiès waa Thiès itamit ma def fa phase nationale moo di Modou Diagne Fada ñëwoon ci final bi ni kii de bëgg naa ko ci sama final samedi bii di ñëw. Mm-hmm. Daaru Moxti Daaru Moxti. Mm-hmm. ci terrain vague boobu noonu. ma ne mu woo ma ni ma dama bëgg nga ñëw reporteel ma sama final man ko incha allah dinaa ñëw. Mm-hmm. ma débrouillé ba dem Daaru mosti reporter keroog la ma Matar si laa gis. ni ma yow foo nekk ci àdduna li ngay def nii macha allah mën nga ko. ma ne ko lii de sama passion la xëy na. Euh, amaguma ci chance pour liggéey ci rajo doon naa liggéey 100 point 6 bu Thiès mais sama baat musul jàll chaîne nationale parce que gars yi bëgguñu woon man may jàll. mu ni ma samedi mu ni ma lundi nag ma indil sa demande. Hmm. wallaahi Youssou Ndour mi ngi toog Youssou Ndour ni ko away ah DG kii ku ko jàppale mu am il a du talent. Euh, lundi ma jóge Thiès dem RTS ci bunt bi laa yem poste de garde bi. Hmm. joxe leetre bi dem ñibbi mardi ñu woo ma ni ma mercredi da nga ñëw mercredi ma ñëw Matar si la recevoir ma si bureau ni ma duma la defal euh, nu mu tuddati stage contrat de stage dama lay jël directement parce que kenn nettaliwu ma man maa la dégg maa xam li nekk ci yow donc noonu la affaire bi demee de fil en aiguille ba ma am embauchement RTS. après laa fa jógee comme ni nga waxee dem groupe des médias mu nekkoon un nouveau challenge. Mhm. ma def fa juróomi at yu nga xam ne je pense que ñëpp gis nañu la ma fa liggéey. Mhm. mu amaat beneen challenge bu bees muy la groupe e ñu woo ma topp nañ ma lu yàgg kilifa bu mag dugal ci kàddoom. Mhm. ma may ko cër boobu dem pour relever les défis parce que nit ki moom man dama gëm benn affaire Babacar. li nekk ci yow. foo jëm da ko fay yóbbaale. dëgg la xam nga doore woo fii. non no non. voilà <laughs> am nga foo nekkoon. <laughs> bien sûr te fii indi woo fi sa bopp. non non dañoo gis la nga liggéey feneen. Ah. mu doy leen ñu woo la ni la lii wóolu nañ la ci. parce que am na talent bu nekk ci yow te talent boobu nekk ci yow à ton jeune mhm. moo nekkoon ci man bi may am âge yi nga am. kon gëm naa ne fu ma toll di nga ko paase mbir mi lan la gëm sa bopp il faut être euh, maanaam euh, ku nga xam ne da ngay am lu ñu tuddee la confiance en soi. mooy gëm sa bopp nit ki boo gëmul sa bopp doo avancer doo progresser donc man gëm naa ni fu ma dem mhm. li ma yor yàlla jagleel ma ko ci lu tuuti dinaa ko yóbbaale mhm. te foofu yi tamit bu ma fa demee naa fa wane sama bopp am na solo voilà parcours bi ci tënk noonu macha allah jaar jaar bi am na solo trop <laughs> mais am na ci foo xam ne tout dama fay taxaw rek parce que uh-huh. am na ci wax bu ci Sénégal yi doon dégg sa diggante groupe de médias bu Bougane Gueye bi mu fa waree quitter dem i immédiat ci problème mu tiraillement bu amoon ci diggante bi ba ñu sax yegg ci war di dagg say xaalis ak yu mel ni ki noonu yooyu itam loolu loo ci mën a leer sénégalais yi. non xam nga euh, sénégalais yi des fois dañuy wax lu nga xam ne xamuñu ci dara maîtriser wuñ ci dara quoi. Mhm. mais pour leeral man euh, groupe des médias jàmm laa fa seq ak ñëpp rawatina suma patron ma jox ko cër lool muy Bougane Gueye Dany. Mhm. parce que bi may ñëw foofu moom ci boppam moom moo ma recruter moo ma topp pendant ay at euh, deux ans. ma ne que Bougane mu ne am ah, ma ne que ton projet m'intéresse mais tant que Babacar Diagne mi ngi RTS euh, du ma fa mën a jóge parce que dafa am lu ma lié ak moom am cër bu ma jox ak am lu ma dénk te man duma ko war ma ne que bis bu fa Babacar Diagne jógee soo ñëwee ñu waxtaan te bu ñu waxtaanee dinañ jubóo. Mm-hmm. effectivement noonu la demee euh, Père Gaston maa ngi dugal ci loxoom aussi joué ci rôle bu am solo. Mm-hmm. ba man ma jógee RTS dem groupe des médias. groupe des médias li ma fa jëlee du tiraillement du salaire bu ñu dagg lañ ma daan fay ak la ma dige woon ak bugaan ba keroog ma fay jóge musu ci wàññi dërëm musu ñu ma def dara man ay dagg yi ñuy wax ak ay yooyu kenn musuma ko def la ma signé woon ak moom pendant cinq ans la ma fa nekk lépp la respecté donc y pas eu de problème mais man dans le cadre du travail laa dem ba sentirutuma sama bopp ci liggéey bi parce que boo seetloo euh, am na benn jamono euh, groupe des médias ñoo téye woon làmb ji tous les promoteurs ñun la ñu signé loon du ñu woon toog week-end bu ñu deful direct làmb mhm. on les premiers parce que euh, boobu affaire bi neexoon na ñu bëri ñëw signé ak ñun donc euh, ci loolu ñu dem ba benn jamono Bougane xaw a retiré wu ci làmb bi mu retiré woo ci làmb yi tamit defatuñu direct benn promoteur signétul ak ñun ñu dem ba émission bi ma doon animé ak Max Margan je prends Max Margan à témoin trent mm-hmm. heure la woon ñuy dem di ko wàññi di ko wàññi ba émission bi daanaka trente wala trente cinq minutes lañ doon def man ak Max xuloo naa ci wax naa ci antenne ma génn buggaan woo ma ni ma li nga wax waroo ko wax bu dee da nga am loola naqari wax ma ko directement mais waroo ko fësal ci antenne bi ba nit yi di ko dégg mais boobu j'étais hors de moi ma woon contrôler sama bopp parce que man sama liggéey dama ko fonk hmm. te it euh, euh, euh, nu mu tuddati grand combat rendez-vous la woon ñëpp xam nañ ko man ak Max bu ñu fegoo di def émission ax <laughs> lu làmb yëpp dañu doon bàyyi xel ah donc loolu ñu dem ba tey di ko buux di ko buux di ko buux ba émission bi matatul sax une heure de temps bon ne voilà il se passe quelque chose hmm. te man gëmuma lu dul sama liggéey amatuma direct 30 minutes laay ñëw liggéey dem émission ba ma amoon muy émission sport bi gënoon mag foofu ñu supprimer ko ci grille bi man ajaa bi tey ñun ñoo ko doon animé ñu dem ba supprimer émission boobu ci grille bi man maa ngi doon fayeeku normal bu ma neexoon toog nekk fainéant. 30 mhm. minutes par semaine ma dem <laughs> liggéey ko bu weer dee ñu fay ma ma ñëw toog mais dama dem ba xam ne. Mhm. amaana sax xëy na li ñu may fay man mérité tuma ko parce que liggéeyatuma ci kër gi lu ko fa jar franchement. ci moment boobu laa ne vraiment gisatuma suma bopp ci liggéey bi parce que moi je suis un sportif un journaliste sportif dans l'âme mhm. lu may liggéey sport moo ma ko gënal mhm. mais bu ma demee ba gisatuma sama bopp ci sport damay retiré wu loolu moo tax ba ma ñële oowee ni ma boo ñëwee loo bëgg def wax ñu ko ñu bàyyi la nga def ko sur le plan du sport mhm. loolu moo waral man ma dem Euh, euh, immédiat mais du dara lu ma joteeg Bougane mhm. même ba même ba ni nga demee nii sax toppuñu ñu la ci wàllum xaalis ak dara non non non parce que man euh, bi ma fay jógee dama ñëw jouer carte sur table ñu wax ma ni ma bu fekkee ni danga bëgg a dem lii nga ñu ameel li ma leen ameel ma dem ñu jox ma ko ma ñëw fay leen ko ñu tàggalikoo ci jàmm topp ma dara topp ma leen dara. am na solo c'est clair. macha allah am na solo euh, E-Media tamit dafa mel ni ba nga fa ñëwee ba tey li olof wax ku yokkul yaa wàññi gis nañ ne wax dëgg yàlla yokkute am na fa parce que gis nañ ne sport waxuma sax làmb mais en général ci boppam yëpp yaa ngi koy couvrir foofu à tout moment ba bi ma lay woon nii sax defe naa ne yaa ngi war a dem nii Thiès pour finaalu Sénégal ak Mali. voilà euh, donc tey dafa mel ni que. Mhm. sama passion. maa ngi koy dund à immédiat parce que xam nga euh, maanaam loolu ndimbalu yàlla suñu borom la ngay exercer le métier de ta vocation le métier de sa de ta passion mooy li nga xam ne tey mooy kàddu yàlla may ma ko macha allah euh, loolu ma ma yàgg bëgg communication yàlla doxal may may dox bay liggéey ci communication loolu mayu yàlla suñu ndimbalu yàlla suñu borom la mhm. ma bëgg sport di ko topp parce que man bi may nekk xale laay jaw lañ ma daan wooyee may xogaliku <laughs> waaw man fubal rek laa xamoon <laughs> te ba fubal rek laa mën a ba léegi ak ñu bëri sax mm-hmm. xamuñu ne fubal laa gën a mën a reporter que lamb donc ok donc football sax moo ma yóbbu euh, RTS comme ni ma la wax. ci ci terrain football lañ ma jëlee. des terrains vagues de nawetaan à la RTS. donc mm-hmm. loolu du parcours cuune. non non voilà donc foofu maa ngi def arène euh, euh, nu mu tuddati arène sénégalaise ak El Hadj Ngagne Ndiaye la ma doon def euh, Sen TV moom laa fay def muy une heure trente d'émission ma feggoo ko ak ndaanaan lu mel ni El Hadj Ngagne beneen bi ci des ma am émission sport bu nga xam ni je parle de toutes les disciplines sportives bu bokkul ak làmb muy omnisport ma koy def tous les dimanches ak ñoom Sekou Seydi ñoom Pape Malick Diaw ba pare je présente le journal le journal télévisé. Mhm. du lundi mardi mercredi maay def journal dama ko doon def lundi mardi mercredi ba jeudi. ñu ni ma yow sa présence ak sa passage ci RTS daaj nañ la gis ngay def journal olof dañu bëgg nga defaat loolu. ba léegi man maay présenter le journal de de dix huit heures quarante cinq. donc maay def journal maay def sport ci télé bi di def sport ci rajo bi. Mhm. tous les grands rendez-vous du sport. Mhm. ñun dañu koy reporter en direct ba ci Ligue des champions dañuy toog ci rajo bi di def en direct donc tey loolu maa ngi dund sama passion euh, donte nag nit ñi bu ñu yaakaar ne mhm. euh, tey lu ma yóbbu E-Media dama faa am lu ëpp li ma amoon des médias hmm. mukk salaire yi mukk ban moo ëpp maanaam la ma amoon E-Media euh, ah, des médias moo ak avantage moo ëpp li ma am E-Media avantage bi mu ëpp fële grand nga bàyyi. wallaahi. billaahi wallaahi watalaahi. barke Seydi Aboubacar mii ma jàkkaar lool. avantage ya ma amoon. des médias dama ko wàññi ñëw E-Media ndax bëgg liggéey ndax bëgg dund sama passion. ok am na solo. waaw na solo. que bi ma pour ne pas révéler wala parce que wax dafay leer. man bi ma euh, Bougane Gueye recruter mhm. salaire bu baax la ma fay jox ma oto salaire bu ñett mhm. la ma doon fayeeku euh, RTS mhm. la ma fay jox ma oto ak carburant jox ma téléphone ligne téléphonique di ma fayal luyaas fi ma dëkk ñeenti condition yooyu yëpp Bougane mi ma ko doon defal mais loolu yëpp damaa dem ba xam ne mériteetuma ko parce que liggéeyatuma fa lu ko jar mais fii immédiat salaire bi daanaka bu ëppantee cent mille francs la. bu ëppantee ak fële. ak fële cent mille francs de plus. Mhm. fayaluñ ma lu yaas maay fayal sama bopp. kon xam nga ni am na avantage bu ma amoon ca contrat bële. bu nga xam ni dindi naa ko te mi ngi may sonal. te maa ngi koy muñ. parce que man sama bailleur bi ki ma ki ma luyee fii sequma woon ak moom dara directement des médias la doon traiteel ñu koy viréel liñ li ma war a fay luyaas ñu ko koy dugalal euh, ci comptam mais léegi ci sama salaire laay jël di ci fay sama kii te lañ ma tegal lañ ma tegal muy cent mille yooyu man maa ngi fay cent soixante mille <laughs> location donc xam li may wax day yéem ñu bari parce que l'idéal mooy bu fekkee ni dangaa jóge ci barab. dem ci barab avantage ya nga fa amoon da nga koy conserver maa nga yokk ko. maa ko mais man dama koo wàññi pour liggéey fii. Mhm. donc voilà la la la la réalité et je suis en aujourd'hui ñi ma xam dëgg ñi ngi commencer retrouver le vrai Malick Thiandoum bi nga xam ne dafay reporter football. 90 mhm. minutes boo ma dégloo rajo am na ñu nga xam ne dañu jekki benn jour. ñu bind ci Facebook bi n'ayez pas le complexe fay seen soow canal déglu Malick Thiandoum ak ak ak Malick Diaw. déglu naa la ba taay kay ci Ligue des Champions je commence à retrouver mes marques parce que maa ngi reporter ay match ñi ngi dem ci compétition internationale yi euh, maa ngi def football maa ngi def basket maa ngi def yeneen discipline et maa ngi def journal donc je suis en train de d'exercer pleinement mon métier amatuma jot di lundi au dimanche may liggéey léegi te fële benn yoon laa doon liggéey am na solo loolu am na solo trop kon bëgg-bëgg foo ko fekk maanaam passion dafa am solo defe naa li mu wax nii passion moo ko jar maanaam di fayeku doo liggéey defe naa loolu boo yoree gor doo ko bëgg. li ngay bëgg mooy bu ñu lay fay lañ lay fay nga mérité ko macha allah loolu tamit defe naa beneen leson la ci ñi nga xam ne tey ku ci nekk yaa ngi xëy fen di fa liggéey yàgg maar léegi nag damay ñëw ak yow ci làmb defe naa làmb tey ci reportage su làmb dañ naan am na lu bëree baree bare loo ci yokk say dimanche ak tubaab yaa ngi ciy dugal <laughs> yooyu dafa nekk yoo xam ne nii grand yooyu secret yooyu parce que loolu dimanche moom xale sax dañ koy waxante ci mbedd. waaw bu ma rombee sax moom lañ may wax. <laughs> waaw dimanche loolu lan la. waaw xam nga en fait man làmb sax comme je di dit taxul woon ma dugg RTS. franchement football moo ma fa gënoon a gën a gën a indi. Mhm. may def journalisme sportif di di dem di couvrir couvrir naa trois coupes d'Afrique des nations à la RTS. équipe nationale fu nekk gunge naa ko fa euh, ci ci ci continent bi jusqu'en France. Mhm. donc euh, mais bi ñu demee ba jamono. Mhm. Euh, Omar Dia dafa dem retraite Samba Mangane ñu affecté ko France ambassade de France. Euh, pa Mansour mbay yàlla na yàlla guddal fanam jëm mag ni moom mënatul yenn yi mhm. ñu topp ma ni ma bi ñu xoolee RTS yëpp yow lañu gëm ni war ngaa mun a def làmb ñu may topp ci couloir yi ma leen di làqatu naan leen man du ma def làmb mënumaa reporter làmb ñu ni ma mën nga ko ci lañ ma tañ ci bureau Babacar Diagne convaincre ma ma ni naa essayer Omar Dia ak Samba Mangane di ma encadré may ñam di ñam ba commencé euh, ñoom ñu rocceeku bàyyi ma. ak plateau bi waaw départ bi nit ñi. nit ñi xamuñu woon sax lu may wax a ah. <laughs> ah parce que boobu moom. boobu moom affaire football bi moo gënoon na nekk sama bopp. que affaire làmb ji. mais xam nga rek loo tarbiyu yàgg ci. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, da ngay dem ba am ci say mbir bopp mais man bi ma ñëwee dama ne. Euh, su ma ñëwee di def li ñëpp di def. du mm. safe donc boo ñëwee ci mbir da ngay jéem a ut benn touche personnelle boo ci yokk donc ma ne comme man yàlla dimbali na ma am naa benn niveau intellectuel euh, te ñi nga xam ni dañuy seetaan RTS à travers le monde ñu ci bari dégguñu ñun li ñuy wax te suñu sport bi dafa leen di intéressé ma ne xaaral ma commencé di ci dugal kàllaamay tubaab mais le fait de dire dimanche ce n'est pas que man maa ko créé mais dama fekk El Hadj Moustapha yàlla na yàlla yërëm bu may doon dem archive di jël yenn affaires yi pour def suma émission damay dégg à chaque fois bu combat amee mu marqué date bi mu ne tey telle date nangam ma ne ah ça c'est une bone chose parce que pour la postérité tey ku tàppee combat diw ak diw ci internet bu la bu dégloo Malick Thiandoum dina dégg ma ni dimanche 22 avril 2012 nii bala gay numéro 2 donc parce que loolu c'était une empreinte mais ma naa ci yokk samay caf kay bopp foofu laay indi leur fatidique s'approche la pression monte, monte. l'adrénaline monte mm -hmm. émotif et cardiaque abstenez-vous ou mm-hmm. prenez du sucre ci lay soog a yuuxu nag dimanche waaw boobu boobu sama sama yëfi bopp la mu am ñu bari ñu nga xam ne loolu da leen a neex waaw te am na ñu nga xam ne nee nañ ma wóor na yàlla li nga ñu màcctuloo suukar bu ñu jabetee yow la ah. <laughs> ndax paquet suukar yëpp lañ doon daaj waaw et c'est des moments yu nga xam ne danga nga war a mm-hmm. xam nga reporter mm-hmm. dafa am moment bu nga xam ne euh, yow yow rek yaay nekk waaw boobu yow kese la mm-hmm. boo nekkee yow kese nag ñi lay déglu il faut nga capter nga seen attention te booy capter seen attention dafa am ay termes yu nga xam ne yow yaa koy indi dafa am moment bu nga xam ne da nga leen war a tiital. Mm-hmm. ba ñoom ñëpp ñu concentré wu ci objectif bi. Mm-hmm. am na ñu nga xam ne bu ma yuuxoo dimanche ñu daw génn. ñu daw génn waaw parce que mënatuñu dékku pression boobu parce que c' est des moments xam ne. Mm-hmm. Euh, des fois sax nit laaj ma yow moment boobu est ce lan moo tax doo tiit. man leen parce que man moment boobu duma gis lu dul sama micro ak ñi jàkkaarloo. ñi jàkkaarloo waaw donc loolu moom moom sama sama mbiri bopp la et puis dafa am ñu nga xam ne dañu nekk à l'extérieur mhm. di ay sénégalais sénégalais bitim réew yi ñu ngi leen di nuyu mhm. ñoom dimanche boobu da leen di boole ci euh, delloosiwaat ci réew mi parce que bu ñu nekkee à l'extérieur lamb am boo demoon extérieur gis ñoom nu ñuy seetaane lamb dangay xam ne ñi ngi dund bu baax làmb ci moo tax boo xoolee système pay-per-view ñi koy jënd bitim réew la ñu nekk te ay doomu Sénégal la ñu ñoom euh, millions yi nga si dégg yëpp ñoom ñoo ko si dugal parce que moment boobu da di boole boolewaat ci réew mi mais dañuy bëgg a concentré wu Babacar mhm. te xam nga par exemple euh, euh, Balla Gaye Modou Lo di bëre mhm. yow nga faral kenn ki ma faral keneen ki am na moment bu nga xam ne bu la nit dee wax bu nit dee wax da lay déranger bu la nit dee laaj doo doo doo doo ko doo ko bàyyi xel doo ko déglu mhm. alors que ñoom ñi ñi dëkkul Sénégal mhm. te nekk ak ñoom dañ leen di laaj mais ça c'est quoi mhm, léegi nga bëgg a expliquer bëgg a seetaan day metti ci ñoom moo tax moment bu ma commencé wax olof bi ma commencé lakk français daf leen arranger ñoom ñëpp waaw ba am na ci un président d'Afrique bu nga xam ne dafa doon toog di ni mais où est le reporter qui parle français loolu Charles Faye di mën na la ko fir firndeel donc loolu c'est des choses yu nga xam ne euh, wax dëgg yàlla dañu toll ci jaay làmb à l'extérieur parce que ñun Sénégal làmb miin nañ ko ba pare mhm. mais comment internationaliser la lutte loolu mooy suñu défi ñun ñii ñëpp te loolu il faut que ñu ciy boole làng bu nga xam ne du suñu bos du suñu bos macha allah grand am na solo mais dinaa laaj tamit ci bis yu mag yi nga reporté bu la ci gën a marqué yow boo xam ne yow bés bi dootu ko fàtte bu mukk si làmb waaw xam nga sànq rek bi may wax rek dama tëb rek ma wax dimanche 22 avril. waaw waaw day date bu ma marqué. <laughs> wax dëgg yàlla 22 avril 2012 22 avril 2012. Euh, la ma ci reporté. waaw gëm naa ni gëj naa ko sax reporter ci làmb. et puis xam nga lan moo. lan moo lan la yóbbee woon loolu. waaw parce que li ko indi mooy xam nga dafa amoon sono bu mag bu nekk ci stade bi. Mhm. benn moment. bi làmb ji di waaj a commencé. Mhm. gars yi def synchro li ma doon wax ci micro RTS. ak sono bi ak sono bi. mbër yi di ma dégg stade bi yëpp di ma dégg. ba ci biti kay ci biti. dañu mujj sax ni leen nañ ko fay parce que day perturber mbër yi te man loolu laa tàmmoon bi may def nawetaan loolu nag daf ma transcender. ñu indil la ko ñu indil ma ko ma yuuxu dimanche stade bi di riir mbër yi di ma déglu. Balla Gaye 2 l'enfant de Malifara le fils de Double Less mi ngi jàkkaarloo ak yax Yaxya Diop Yékini l'enfant de Bassoul 15 ans d'invincibilité affaire yooyu commencé toj bagage yi rek pression bi yéeg nag foofu moom dootuma dégg dootuma gis te damay am inspiration bu nga xam ne mhm. man gëm naa ni sëñ Babacar mm. euh, maanaam bu may toog di wax mm. wóor nu yàlla suñu borom du ma préparé ne ko di bind ay notes di yóbbu non non non non du ma bind incha du ma bind. Euh, bu dul émission. Hmm. du ma bind bu dee reportage live du ma bind. yor sa micro nit live. rek dem euh, te moment boobu dama jàpp ni yàlla moo koy may doomu aadama. Hmm. parce que l'art de la communication est un don de Dieu. bien sûr waaw hmm. ñëpp ni tekk di la déglu. mayu ko yàlla suñu boroom la. te loolu yàlla da ma ciy cëralee lu sew rek lu ndaw rek. donc moment boobu man. Euh, li tax mu marqué ma mooy d'abord li ñu yokk sono bi ba ñëpp di ma dégg mm-hmm. après ñu dindi ko mais ma continuer ci lancé boobu mm-hmm. mu nekk tamit combat bu nga xam ne dama ko topp de bout en bout mm-hmm. de la préparation ba ci combat ba bi arbitre bi sifflé dara ump ma ci état de forme mbër yi nu ñu entraîné seeni ruq seeni ruqaat fu nekk dugg naa fa balaa combat bi kon yoo yow xamul nga ndam li fu mu jóg non non je ne savais pas franchement xaw ma ko woon Hmm. mais xamoon naa ne euh, bala ñeme na lool Yaxya hmm. waaw te it cër ñeme gi mu ñeme hmm. gisuma mbër mu ko ko ñemee ba mu dalee bëre ba ci combat boobu kere daal nga jàpp ne Yaxya tey am na adversaire bu ko am na adversaire bu ko ñeme bu ko nar indil jafe-jafe xaw ma woon ndax mooy daan wala mooy daanu loolu sama yoon newu ci woon mhm. mais je savais que du yomb ci moom te li taxoon ma gëm ni du yomb ci moom mooy Balla dafa am sañ-sañ te Balla yi tamit dafa nekk mbër bu nga xam ne e, cër bi gars yi di jox ni mhm. mooy le trop de respect mhm. joxu ko ko da ko def nawle mbërëm rek jàpp ni mën na ko daal mën na ko daal alors que ñu bëri ci mbër yi doon daje ak Yékini mhm. dañ doon am benn moytu bu ñu doon moytu Yékini am lu ñu doon ragal ci moom am benn complexe d'infériorité bu ñu doon am ci moom ba mit boobu mënuñu ko woon mënuñu ko woon mënuñu ko woon dindi alors que Balla jour boobu mhm. boo déggee ba mu daadee mën ni le mythe Yékini s'effondre s'effondre waaw le mythe s'effondre mhm. parce que ñu bëri gëmoon nañ ni après quinze ans de règne du Balla Gaye moom moo mën a daan Yékini et combat bu amoon tension avant. Mhm. ci wàllu wax. Mhm. lu ci wàllu <laughs> non mais non c'est un combat bu nga xam ne ah. ñun pression bi ñu dund ba egg ci bës boobu dañu yàkkamte woon mhm. bés bi jot sax ba ñu ba arbitre parce que li ñu sànnante ci ay kàddu dem na ba dugg sax ci mbiru waaso donc c'était devenu extrêmement dangereux ce combat là mu tenir en haleine tout un peuple combat boobu ma ne la daf ma marqué de bout en bout et c'est le combat qui m'a le plus marqué te tax na ba benn combat mënatul am dayo boobu ci man ba ma tiim micro di di di di di, am pression parce que li olof di wax ku yéeg ñay ba wàcc ko loo yéegati mu ndaw combat boobu c'est man maa ko topp de bout temps bout <laughs> ak pression bi ci am waxuma ci lu ñu may xeebe waxuma ci lu ñu may voilà waxuma ci lu nga xam ne farandoo nii euh, nee nañu daa faral Balla Gaye wala farandoo Balla Gaye ni daa faral Yékini donte am na ci sax benn boy bu mu mës a wax loolu du ci ñàkk <laughs> du ci ñàkk <laughs> mais en fait uh-huh. euh, vraiment pression bi entouré woon combat takkusaan boobu uh-huh. pour ñu amati ko ci làmb dina jafe dina jafe donc c'est c'est le combat qui m'a le plus marqué Balla Gaye Yékini du 22 avril na solo